tey li ñu waral bés bi ñu ñëw fii tey pour màggal la bés bu nga xam ne dafa am solo ci mbirum environnement bu ñu waxee dafa am solo lan moo tax ñu wax ko parce que d'abord en tant que doomu aadama nit ki fi nga war a dëkk dafa war a nekk bërëb bu nga xam ne bërëb dëkkuwaay bu mucc ayib la mucc ayib nag joxewut rek juste que da ngay am lu rafet waaye ci màndargay ni ngay dundee da cee am solo loolu tax ñun suñu groupe déjà do doxuñu rek pour ñëw tabax dem mais suñu projet yëpp buñ koy commencé ba buñ koy terminer lépp li nga xam ne waroon nañu ci respect par rapport ak gàncax bi ak alam bi loolu noonu dañ koy suivre du début jusqu'à la fin du ñu yem ci rek point de vue li nga xam ne loolu la ñu yoon wax du ñu yem ci point de vue li nga xam ne loolu la ñu sasoo vis-à-vis ak suñuy eh, vis-à-vis ak euh, normes environnementaux yi mais cadre de vie bi aussi da ciy am solo moo tax aussi bés bii tey tamit ñu taaral ko jëmmal ko ci li nga xam ne moom mooy sax ay garab dañoo sax tey ay sañ sax ay garab fii yi nga xam ne dina mën a permettre bâtiment yi non seulement nit ñi du ñu ñëw rek liggéey ci mais dinañ mën a am li nga xam ne moo leen mën a permettre ñu nekkee ci nekkin bi nga xam ne moo gën a mucc ci mucc ay ko xam jam ñaajo xam ni mu mel da ngay xam ne jam ñaajo garab lu fi am solo la te ñoom loolu nañ nekk di def maa ngi leen si félicité occasion la woon pour man ma ñëw visiter immeuble yi nekk suñu ginnaaw muy immeuble yoo xam te ni waa Sénégal India ñoom ñoo ko tabax ngir état du Sénégal ay service su état ñoo fi war a nekk muy bâtiment yi mucc ayib yoo xamante ni boo duggee ci biir lépp loo soxla mi ngi mi ngi ci biir li tubaab di wax batiment intelligent mooy bâtiment yi nekk suñu ginnaaw kon damay lancé appel agent état bi ak service yi nga xam te ne concerné ñu gën a baral seen ñëw fii nga xamante ni mooy si jam ñaajo parce que jam ñaajo mooy futuru Sénégal jam ñaajo mooy futuru Dakar